li ca des nag mooy complot yi nga xam ne Macky Sall mi ngi moom complot yi mu nekkee xam nga li mu defee woon France ñun xam nañ ko ku mu dajeel France ci ñu ci lu ñu fësal ak lu ñu fësalul xam nañ ko ci ñu bokk ci réew mi ak ñi ko ngemb ci France lépp xam nañ ko lam fa uti woon xam nañ ko ay pexeem lu mu def su ba ngoon jot du ma ne lépp xam nañ ko de waaye lu ci bëri xam nañ ko parce que ni mu yoree ses services de renseignement général yooyu noonu la ñu amee ñu nit suñuy nit fu mu toog ba foog ni wéet na fa sax na xam ni li muy def ñu ngi koy xam kon gënuñ ñoo muus ma bëgg a wax sénégalais ni procureur li mu def sànq commande politique la ça n'a rien à voir avec la justice procureur ci boppam xam na ne li muy wax du dëgg xam na ko kon li mu def léegi politique la du justice tey it yi fi nekk yëpp ay cible Macky Sall lañu waaye xam nañ ni tey leen tax a jóg mooy jëmm Ousmane Sonko moo tax dem nañu fabriquer seen rebelle fexe nañ ba mu tudd Ousmane su tudd loon Ousmane it Sonko lay sant waa su tudd loon Ousmane su tudd loon Bakary Sonko lay sant dem nañu fabriquer seen i rebelle nee nañu waa ji moom xamu fu mu jógee moom dong nag moo waroon ñëw taal Sénégal moom donc xam nga fu ñu ko jëlee ak ay xam naa ni war naa yàlla war na ko may ay dons yu extraordinaire moom dong moo waroon ñëw taal ci senegal ma wax leen ni procureur waxul dëgg day politique ci politique la nekk waaye procureur dafa waroon am fitu ne Macky Sall daf maa yebal pour ma jiiñ Ousmane Sonko rebelle dem jàppi ko wax jéeb loolu la ay personne n'est introuvable dans ce li mu ci jublu xam nañ ko waaye ñoo ngi leen di xaar jóge nañ ci complot siif jóge nañ ci complot salafiste jóge nañ ci complot Tullow oil léegi bii moo leen dese waaye fii lañ leen di xaar fii lañ ñuy fekk seen complot bi mu voté loi am gannaaw duma yiñ ko duma mars daaw la voté loi ci terrorisme yéen a koy fàttaliku rébellion la ñu bëgg a wax appel à insurrection ñaar yooyu la ñu bëgg a wax appelé à manifester qui est un droit constitutionnel est désormais un appel à insurrection dans le jargon de lexique juridique de Macky Sall de son procureur et de ses juges foofu lañ toll ci senegal seen mbébét yëpp nag mooy lu ñuy def ba teg loxo ci leader yi seeni complot dem na ba ne soyez pas étonnés ñu fomante fi ay attentat Macky Sall sañ na ko di ngeen jékki ñu dégg attentat parce que soo wax ñu ne la contexte sécuritaire le Sénégal n'est pas en danger sécuritaire daaw bi ñu ko waxee 4 avril police ak gen kii militaires yi ak gendarme yi 4 avril ñoo def seen émission ne li ñuy wax amul y a pas de djihadisme ni de terrorisme au Sénégal démenti boobu mu ngi fi dugg leen ci internet bi parce que nag nous avons une armée très républicaine boo xam ne kenn mënu koo dugal ci caaxaan pexem yi muy def ni yëpp ci police la ak ci ñi jiite ñenn ñi jiite gendarmerie waaye police bi du leen topp de la ci ëpp ci agent yi duñu leen topp te chaque fois ma wax leen ko nag Macky Sall bu mu leen tayle saa yu defee li muy def ba pare day jël avion dem bu mu leen tayle mais seen complot yooyu yëpp daaw bi ñu ko waxee dajale dajale euh, force occulte qu'on a vu jusqu'à présent euh, xaw ma la nag lan terrorisme gendarmerie ak police ñoo ñëw plateau 4 avril ne loolu amul kan moo ëpp information gendarmerie ak armée ci lu jëm ci sécurité amul ci Sénégal Macky Sall ci boppam ñooñ ñoo koy informé Sénégal nag ñoo war a bañ Macky Sall sa stratégie waxoon naa ko fi c'est la stratégie du kaw xam na ni mënul am troisième mandat nu muy def ba créer un kaw fexe ba jàpp les leaders daa di décra décréter d' urgence et et et le comment on appelle ça le couvre-feu général pour mun a justifier nag li muy def régime militaire la fi bëgg a andi bu dee nag dañ ko topp ci loolu te mi ngi koy def ak des complicités étrangères et à l'interne ay ay milices yu muy monté moom Macky sal ay milices yu muy monté pour ñu mën a def ay njombe ci réew mi ñu ne voilà opposition bi ñoo woote woon loolu lay waajal ñun xam nañ ko ndax am nañu information yi ma wax nag nii ñu bëri ñu ngi woo ne ñu bu leen dem ci affrontement ñun suñu option première du affrontement suñuy droit constitutionnel lañu ñu bëgg a exercer un point un ak refuser une mascarade par rapport à nos amul leneen ñu bëri dañ lay wax ni Macky Sall sait que l'affrontement est inéluctable mais repousser leen ko ba coowal troisième mandat commencé mais li ma bëgg a wax mooy li mu bëgg def ni suñ ko ko bàyyi bàyyilee mu yombee noonu ci moom dara dootu ko jomb ci li ci des parce que du koo xam ne xa mun na dégg wala mun na raisonné wu moom xamul loolu su lambee mu nooy rek day dem looloo tax ma ne ñun combat de principe moo tax ñuy xeex manifestation ëllëg bi gannaaw ëllëg bi leaders yi ñooy xool ndax suba dañuy introduire référé directement euh, au niveau de la cour suprême man dama koy wax gëwma cour suprême gëwma conseil constitutionnel jusqu'à ce que ñu réformer justice bi dama gëmul justice Sénégal ci dossier boo xam ne am na connotation politique gëmuma ko mais la loi d'abord l'article de la constitution dafa ne liberté de manifester sénégalais dama bëgg mu leer mooy sénégalais bu nekk am nga sañ-sañu ñaxtu te waxul ni da nga war am autorisation de dafa ne da ko war a yéegal rek autorité bi la loi de 1978 sur les manifestations lan la wax dafa ne autorité administrative mun na interdire un regroupement wala une marche mais ci ñaari condition te ñaari conditions yi dañu war a daje dama bëgg ñu dégluñu bu baax donc interdiction bi c'est l'exception c'est pas le principe mais pour mu am il faut que ñaari conditions yi daje bi ci njëkk mooy il faut mu prouver ni am na menace à l'ordre public prouver gu ko de wax ñu lan mooy menace loolu moo tax ñu ne procureur génnal ne gis nañ fi ay rebelle yu bëri Salif saajo sax mi ngi dakaar ay waxu daanu saret yoo xam ne kenn xamul lu mu doon ñaareel bi mooy ñu prouver que ñoom amuñu suffisamment de force de l'ordre pour pour encadrer la manifestation ba trouble ba menace de trouble à l'ordre public boobu du am ñaar yooyu il faut mu daje or su ngeen seetee arrêté préfet bi benn la ci wax kon arrêté bi c'est illégal dafa ne menace à l'ordre public mais waxul ni man préfet awma suffisamment de policiers de gendarmes pour encadrer la manifestation te gis nga loolu cour suprême ci boppam génn na ci arrêt yu bëree bëree bëri bëri ma jox leen ci ñeent rek en 2011 Alioune Tine Rado contre État du Sénégal en 2016 Amnesty International contre État du Sénégal en 2018 Église du christianisme céleste contre État du Sénégal et en 2019 Assane Ba Birane Bari et compagnie contre État du Sénégal yëpp même chose la état du Sénégal dafa interdiroon manifestation cour suprême ne ko da nga ne simplement que menace à l'ordre public mais prouvé woo ni yow amoo suffisamment d'effectifs de policiers et de gendarmes pour encadrer ba menace boobu du am donc tu n'as pas le droit d'interdire la manifestation donc l'arrêté du préfet lui-même et illégal léegi nag leader yi mun nañu xool parce que man gëw ma ay ay li ñu li ñu justice woon ci jamono ji man gëwma justice bi mais su ko su ko état suñ ko dugalee suba it la cour suprême a 48 heures pour délibérer mais vu que ñoom tey la ñuy doog a notifier affaire bi suñu dugalee suba la cour suprême doit se donner les moyens de de régler cette affaire avant vendredi matin c'est ça qui est la norme mais duñ ko def parce que waajee toll fi mu toll woo leen ne leen bu leen yëngatu foofu la Sénégal toll bu ma dajalee lii lépp nag je vais lancer un appel au Sénégalais au militants et militantes aux sympathisants et aux sympathisantes à tous les Sénégalais et Sénégalaises épris de justice appel bi ma leen lancé woon daaw laa leen di waxaat c'est un appel à la résistance constitution moo ne ku ñu dénk nguur muy jalgati yoon di utiliser les moyens d'État pour dal ci kaw Sénégalais yi pour dal ci kaw opposition bi constitution may na la droit nga résister ni mu valable woon daaw ci mois de mars la valable tey lu bëri ci sénégalais yi dañu jàpp ni mobilisation bi sénégalais yi affaire u jaralagu leen ñu mobiliser wu donc nañu xaar mbir mi ba bu mu tuddee troisième mandat may wax sénégalais yi ni du affaire u moo tax ñuy mobiliser wu lay xew tey mooy déterminer troisième mandat bi bu ku jàpp ni affaire bi suñ ko bàyyee mu yomb nii du continuer ci troisième mandat bi force def forcing da ngay nax sa bopp moo tax j'appelle tous les sénégalais à la résistance dafa am jamono yoo xam ne buñ ci tollee cim réew li nga xam ne mooy xeeñ ci sénégalais ñëpp xam ni changement bi ñuy xaar depuis longtemps xeeñ na mat na ñor na surtout yéen jeunesse bi surtout yéen jeunesse bi muy étudiant bi muy ambulant bi muy euh, euh, élève bi muy keneen ak keneen nga xam ne yéen la ñu bëgg xañ loolu Macky Sall bugg fi toogaat vingt ans parce que rek suñu gaz bi mu bëgg jaay mu jaay ba pare bugg koo continuer ak suñu xaalis réew mi ñuy détourner ak yeneen ak yeneen su ngeen seetaanee ba lii romb facilement suñ ko seetaanee ñun ñëpp ba mu romb facilement dinañu màtt suñu baaraam te duñu am fuñ ko jooyee moo tax fu ñuy daanelee mooy appeler publiquement massivement à la résistance face à la dictature rampante de Macky Sall